ci jeex na loo bëggoon ñu defaral la. xanaa defaral ma lu baax rek. danga nga bëgg lu baax. waaw danga nga ma defaral la lu baax. lu baax baax. sama jikko la damay defaral damay damay lu baax. lu baax oh. <laughs> yow eh ñuy fo. <laughs> dañuy fo tey da bëgg def ni ex mën na mën nga fee rek. nga eh, attaché des ah mën nañ cee kii. dëkk ndar nekk ci dëgg yàlla ku dëkk ndar wara a mën a war a mën a feey alors euh, euh, tey tey tey tey seen kër j'imagine war ngeen dem marché ba pare dugg ngeen ba pare parce que waaw dem nañ marché voilà dem ngeen teñ di duggee wala fu ngeen di duggee ca ndar marché teñ jigéen ah, ngeen di ngeen di duggee waaw xam nga lu ma namm nag ah. mbaxalu langouste ay ci ñëwal des na ci mbaxalu mbaxalu laa namm dama lay jox dépense bu tey bi mais su may ñëw ndar dinaa la ko wax parce que ñu ngi pare. Mm. Euh, euh, suñu ay antenne décentralisée ci région yi dinañ ñëw ndar. voilà tu gardes la ligne ñu jox la sa dépense su tey dix mille voilà merci. nga nuyu ñu waa ndar merci mais bi woon keroog jotaguma ko. di nga ko jot euh, vendredi tey la lan tey la. vendredi. tey la tey la mercredi waaw suba jeudi voilà mu ngoog merci beaucoup ñu ngi lay gërëm bu baax toute la journée appelé merci beaucoup voilà tonton Mac merci euh, ñu ngi nuyu faatu Sora bu euh, euh, Sëñ Fall ak Mamadou Gueye tata Fatou Lay Kena yooyu itam ñu ngi lay souhaiter une bonne journée alors Kader Pichini nii ñu ngi jëm nag ci ñaari événement d'abord festival bi nga xamante ni xale yi nga ko jagleel waaw dafa am festival boo xamante ni euh, association bu tudd Jaaramart ak man. ñoo mhm. koy organiser. Euh, mhm. le 4 avril daaw la def suñu première édition. Mhm. Euh, ren aussi 4 avril la ñuy def suñu deuxième édition. festival bi ñu ngi ko jagleel xale yi. mu ngi tudd xale xale la. xale-xale la waaw donc xale-xale la c'est pour dire que taalibe yi nga xamante ni dañuy nekk ci mbedd bi xale yi enfant de la rue yi amuñu euh, possibilité di seetaan ay spectacle ay acrobate ay ay marionnette duñu seetaan télé mm-hmm. parce que taalibe yi dañu nekk si mbedd bi amuñu bu ñu rombee télé bi dañuy jéem a xool donc du ñu dem aussi spectacle mhm. euh, borom doom ñi nga xam ni seen parents yi am nañ xaalis ñoom ñoo leen di yóbbu ay ay si plaza leen yóbbu ay grand théâtre ñuy seetaan donc ñun euh, Jaramart Euh, présidente bi tudd Patricia Gomis qui est comédienne comme moi. Mhm. Euh, qui est clown qui est marionnettiste. Mhm. bon aussi ci xale yi rek lay dox. Mhm. donc ñoo booloo ñu ne dañuy def euh, ci parcours sportif bi nekk ci corniche bi comme niñ ko defee daaw. deuxième édition bi nga xam ne dañuy dem ñun jëli ji ci daara yi taalibe yi tàggu seeni sëriñ indi leen foofu jox leen spectacle donc ñi war a jouer am na ay acrobate am na ay marionnettiste am na ay clown am na ay musicien am na ay comédien ñun ñëpp dañuy jouer pour jox leen loolu mais dañ leen di defaral goûter goûter boo xamante ni bon c'est pas sarax mais ñu sentir ni xale yi nga xam ne seen parents yi am nañ xaalis. Mhm. ak ñoom taalibe yi. Mhm. ñu bokkandoo lekkandoo def goûter foowandoo parce que si trampoline bi dañuy jouer gratuit gratuitement y a des jeux des manèges yoo xam ni ñëpp dañuy ñëw. jouer donc xale yi dañuy ñëw kenn du xàmmee kan mooy euh, kan. que euh, soxla ngeen defe naa ay ndimbal pour dimbali nit yi am. waaw dañu so du du ah. euh, bon ndimbal. c'est que ku am ku am lu muy joxe na ñëw ba foofu. bu ñëwee foofu noonu su dee ay yére la yu bëri bëri ñu jox daara yi. su dee euh, euh, xaalis la ñu ñëw ñu jëndee ko en même temps ak yow mi ko indi nga ñëw ñu jëndee ko lekk ñëpp bokk ñuy ñaan aussi invité nañ ñëpp ñu ñëw bu ñu ñëw ak seen i xale. aussi euh, le 4 avril. le 4 avril à partir de 15 heures. le 4 avril fan. voilà parcours sportif. parcours sportif mooy trampoline trampoline bi nekk foofu noonu. kaay kaay bondé. noonu la tudd donc foofu waaw kaay bondé dañuy ñëw foofu di bondé <laughs> xale yi comme bondé lañ bëgg parce yàgg nga yàgg nga tëb si mat laa ñu lay créer normalement. bi donc buñ la joxee yu mag fii mag yi mën nañ fi def ah mag yi aussi parce que amul fay non amul fay amul dara amul dara c'est la fête des enfants donc ah. ils viennent faire les manèges et puis euh, il y a un spectacle euh, voilà il y a une dégustation yoo comme artiste y aura beaucoup d'artistes comédiens yëpp mais bon la plupart ñi xale yi bëgg quoi ñi nga xam ne ñu ngi def yëfu xale parce que bon euh, du du du concert pour ouais mais yëfu xale ay clown ay marionnette xale xale la quoi ay clown marionnette euh, am na ay musiciens yu ñëw playback voilà quoi mm-hmm. parce que bon xale yi kii nañ leen donc loolu la ñuy def euh, le 4 avril Diarra mm-hmm. euh, Mart ak Kader d'accord ñoo koy deuxième édition bi la. ok le 4 bon, avril ouais. à partir de. heures pour ñëpp ñëw ci parcours voilà. sportif bi. Euh, bëggee ak xale yi alors ça c'est un événement. beneen bi ñu ngi jëm ci journée internationale du théâtre. voilà journée internationale du théâtre demain la demain. Mm. Euh, ñu ngi convier ñëpp pour ñu ñëw parce que bon euh, il faut que ñun aussi ñu vulgariser suñu suñu journée boobu noonu. Mm, ah mm, ñëpp di jox nañu seen bos ñun dañu bëggu tey jii mu siiw nit ñi xam ni euh, les artistes comédiens am nañu jour defee la partie officielle avec le le ministre et autres. Euh, demain à partir de 9h euh, dañuy li ñuy présenter mooy. Euh, conditions artistes yi condition comédiens yi au lieu de dire ça aux gens directement euh, dañ koy mettre en scène mettre en scène bon d'une façon un peu comique parce que bon ku nekk ak sa domaine man je suis dans ça je fais la mise en scène mm-hmm. donc ñu def ko euh, pour Sénégal xam ni ñun lii mooy suñu mbébét lii lañ am lii lañ amagul lii lañ bëgg am. Mhm. donc euh, voilà quoi. demain la euh, à Sorano à partir de 9h. 9h ci suba. waaw 9h ci suba waa d'accord voilà on est content en tout cas ñun content nañu euh, d'abord suñu xarit nga ah Kader qui ne change jamais. ah il reste toujours le même mhm. balaa nga ko xam sax nga jege ko mais c'est normal parce que ni mu toll nii ndekete xol bi xolu xale la. waaw xolu xale xolu xale la yor man j'en sais quelque chose <laughs> yooyu voilà xolu xale la yor et euh, euh, TFM dina àndandoo ak yéen ci ñaari événement yooyu yëpp le 4 avril pour les enfants éviter aussi euh, employé TFM yi ñëw ak seen i doom inchallah partager avec d'autres enfants qui en ont besoin aussi d'être les enfants qui sont dans les maisons dans les maisons voilà mm. Il dit que vous êtes à comparer avec les plateaux de chaînes européennes. Vous faites une team mortelle de Yeewu Leen. <laughs> Donc euh, c'est de la part de Seydou Seydou Thiam donc euh, merci. Seydou Thiam moo baax mi Seydou Thiam ñu ngi lay nuyu alors kon dañuy dañuy jeexal en attendant ñun suñu vidéo happy di ñëw ñu euh, ngoy ci bi fine bi nga xamante ni mooy version sénégalaise bi happy bu Farel ngeen gis ñi ci ne alors on en profite nuyu waa ah, parce que wandar Ndar tamit ñu ngi yónnee ay bataaxal ñu ngi seetaan Euh, euh, xale bi bëgg euh, Mado itam moom dinañu ko seeti di si weekend bi ñun mm. ñëpp ñu àndandoo dem seeti ko et di nuyu nag mair Yombe Fall Yombe Fall moom mu ngi ndar ak njabootam mooy yaayu tonton Pape Ndiaye di nuyu itam maam yaama ñoom ñu ngi nekk ndar di seetaan Badiane Ndeye Seynabou ak famille Diaw nekk ndar ñu ngi leen di souhaiter ñoom itam une bonne journée ah. Ismaïla Diallo ñu ngi koy bégee moom tamit waaw. man Moussa Kane <laughs> Moussa Kane maa ngi nuyu Moussa Kane Moussa Kane fi mu Omar Sarr ñu maa may dégg Moussa Kane ayca onze dem ci happy happy happy happy happy merci à tous on se retrouve demain à partir de sept heures man ak